de di présenter tay lu jëm ci walum sañsé walum jigen nee la le rendez-vous des jeunes femmes les plus branchées du Sénégal sans plus tarder dañuy dugg rek ngeen xol lim leen di proposer ci l'été 2020 yi ñu dëgmal. chers internautes de la division comme ni comme tantôt néna len bo len gissé fi ma taxaw rek ngén xamné le mode nañu ko ken ko muy kan ñu euh, Momo Rasoul. Momo Rasoul, bu ñu Momo rasoul sen xel dina dem ci ki nga Novita sans plus tarder dama koy bay rek mu nuyo ak internet yi koy Momo nuyu nañ la. Euh, soxna lay fay lay la avant tout d'abord donc Euh, gërëm sama papa di gërëm sama yaay donc di ñaanal samay waajur yàlla yërëm leen donc di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo ne ci hôpital yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ak jàmm ñi nga xamante ne ñoo ne ci kaso yi ci caay feet leen ginnaaw yàlla génn leen euh, ñu bañ faa delluwaat ci barke Serigne Saliou milliard ba moomoo ñu bëggoon xam rek euh, kañ nga dugg ci milieu bi est-ce que yàgg na ak euh, ampleur bi mu Novista am mën nañu ni da nga yàgg ci milieu bi ñu bëggoon rek nga retracer ñu tuuti rek ci sa parcours. waaw lii rek du nekkul lu ma xamante ni dama ñëw tëb tëb rek def ko bon ko dama commencé débuter peut-être chef di ambulant donc euh, temps bu body mi ngi jar 800. damay dem ci chinois yi jënd body 800 dem ambulant jaay muy gaaw affaire yooyu noonu quoi par la suite euh, un an et demi euh, maximum deux ans ma dem Sandaga benn centre commercial bi ñuy wax centre commercial Jiri Mbay foofu laa nekkoon ci kaw après nekk fa di ba ci yàgg ma euh, commencé dem ci foire yi di tournée dem ci foire internationale tournée foire yi ci région yëpp dem naa fa tourné naa fu nekk jaay naa fa ci dëkk yi ngay gis yëpp dóor naa fa dem naa jaay fa et tout après par la suite bi ma ñëwee nag donc ci laa taxaw taxawal muy taal. bu ma déggee ci say wax nee nga euh, da nga ambulant donc mën nañu ne milieu bi bu ñu doon bu doon làmb la ñu ne mbapat nga bu baax. mbapat naa bu baax moom vraiment wax dëgg yàlla mbapat naa bu baax a baax baax a baax sax vraiment donc xam nga dara xëy rek sotti ci àdduna donc loo xaar loo xaarul maanaam doo ko fekk loolu lay olof dafa nekk loo xam dañ ci ñafe yàgg ci rey suñu bopp suñu borom dañ ci dimbali donc ñu ci tedd d'al di ci sant yàlla bu baax wa alhamdulilah. su gisee Style foo tourné rek xale yu jigéen n'a la euh, fii mooy le rendez-vous des jeunes filles les plus branchées du Sénégal képp ku bëgg lu baax rek fii lay ñëw loolu complicité bi nga am ak ses clientes loolu nan la demee. waaw xam nga avant tout d'abord nag donc dafa am loo xamante ni ci yaay la donc nit ki moom bu la sa mère ñaanalee. sa yaay ñaanal la lépp loo bokk sa njaboot barki maam Cheikh Rafal lépp loo laal dañ lay gunge rek waaye suñ borom da ciy teg loxo waaw deuxièmement mooy xale jigéen ñi defuñu donc ak lépp loo noo mënti mel te jaayoo luñ bëgg ñoom donc doo leen mën a téye faaw ngay jaay li xale yi bëgg jaay li méngoog jamono xale yi xam loolu di ñëw ci yow te nag dafa am benn complicité boo xam ngi si ñun ah, maag ñoom ñoom ñu nekk samay gaayan nekk samay xarit yàlla dogal ñu bëgg ma loolu xale jigéen yi ma bëgg leen samay client laa am bokk ñi nga xam te ne dañuy ñëw ci Novista di leen bëggee di leen ziar. est-ce que duñu ne da ngay jouer ci sa charme parce que xale yu tamit mooy lolo. est-ce que du sa charme bi ngay jouer pour attirer len non gëwuma loolu nag quoi vraiment parce que gëwuma loolu parce que nit ñi moom nit ñi bëri nañ fi mais bokkuñu duñu benn quoi donc ku ne nag ak sa façon bi nga xamante yow moom ngay liggéeyee wala sa façon bi nga xamante ne ngay jóobee quoi man dama am système yoo xam ne samay ruq affaire la daal man ma xam ne très bien. d'accord comme ni ma ko

Euh, dafa nekk benn style boo xamante ne mu ngi ci man style bi yàgg na ci man démb la dèjà boo mënee sañse rek donc di nga mën a jaay yére kon jeex na te man dama client sama client day ñëw damay xool xam ni ko war a jàpp damay ñëw na ko defal jëlal lii jëlal lii jëlal lii mu dem jël ko donc gis na ci résultat nice. yow nit mën na jóge fële ñëw ak nu mu mënti mel poids bu mu mënti yor mën nga ko ne solal lii sol lii. nit day ñëw sax programme ne bu ñëwee lii la war a jënd. moom mu ñëw ma dëpp li mu war a jënd jox ko leneen leneen loon noonu daf koy jàpp te daf koy neex su demee day toog boo a ne ma yow doo nit barki très ñu ngi ci été bi daanaka gis na nañu tàngoor bi lan mooy li nga xamante ne moom nga wàccee ci ci ci moment bii nii. été bi nag soo gisee donc euh, li li li nga xamante ne mooy tendance mooy ver furieux zone frio orange frio yooyu ñooy tendance bi quoi donc dama fi am ensemble yoo xamante ensemble guerre la yoo xamante ni ay sol dañ xale yi dañ ko ku ko sol daal di gis sa bopp am naa fi tamit ay haut dame haut classe yoo xamante ni donc liggéey ci bureau yi femmes ñoo ko moom ak étio affaire pour weccet bi ay corop top ay o balar yooyu noonu xam nga weccet bi ñoo ko moom seen bos la à part ko ak ay pantalon yu rafet yoo xam ne doy waar vraiment ak ay robu classe. mën nañu wax ni képp ku ñëw rek ak sa niveau de poche nu mu mënti toll di nga di nga di nga mën gis sa bopp biir Style. dëgg yàlla xam naa bu taxee jóg dëgg bala ngay dugg bay génn di nga am loo jënd bu ci suñu borom. da cher ay pour nit euh, comme nga wax. dégg naa moom pour ñu gis fii li leen li leen dañuy gis leen neex mais pour ñu jënd fi dina jafe loolu lan moo ko war a est-ce que le fekk ngay jële yëre Europe di ko andi moo tax wala nu mu fa demee noonu. xam nga benn benn mbir man nekkul kese man kese maa nekk mbir mi donc mbir mi ni ci nekk nañ Sénégal ñuy jaay yëre bëri nañ mais ku ne da nga war façon boo xamante ne moom ngay ñëwee nit ki boo xamee bëgg na sol lu raar donc bëgg na sol lu rafet donc novita jaral na la donc nga ñëw parce que boo ñëwee tamit donc ça dépend ci li ngay laal quoi dafa am ñoo xam te ne euh, ay xale yoo dañ lay bëgg donc di lay béggee mais seen poste du jot seen ginnaaw noonu daal ni ñu koy waxee seen loxo du jot seen ginnaaw donc ñooñu soo ñëwee dama am benn benn partie boo xam à ñoom bu ñëwee mën nañ fa am dara quoi comme xam nga am na ñoo xamante ne moom mooy VIP ñoom bu ñëwee dañuy am seen yëf tamit à part moom ku fi dugg rek di nga gis sa bopp daal vraiment ku ci nekk daal boo ñëwee di nga gis sa bopp ci li ngay jaay ñu gis ne yemuloo ci yëre yi kese yaa ngi def ci li nga xamante ne moom mooy euh, pose ongle pose style affaire yooyu noonu lan moo tax nga boole ñaari ñaari kii yooyu donc loolu dama ci boobu dama ci ànd ak samay rakk quoi donc muy Adja Novita ak ak Angèle donc ñoom ñoo fi nekk pour di pose euh, di def ay affaire yi am jom déggal ma donc mun a liggéey lool macha allah euh, ñu ngi fi nekk boobu ba léegi affaire bi di dara ñaaw samay rakk lañ man maa leen jaboote maa leen boot ñu ngi liggéey liggéey bu rafet na bu am solo macha allah. macha allah donc euh, mën nañu ne rek dangay ngay lépp loo xamante ne ci jigéen la jëm lépp loo xamante ne rek boo sañsee ba jekk say weer rafet et tout moom mu ngi mu ngi ci mu ngi ci biir. waaw mun nga pose. bu la neexee mun nga pose euh, nu mu sil mun nga pose sa tànk et mun nga def carillon booy lañ koy def donc bu la neexee soo jundul tamit mun nga pose yooyu def yooyu noonu après nice. très bien. Euh, chers internautes si vous venez de nous rejoindre nous sommes ici avec Momo Novita euh, Novita Momo Rasoul bu am ambitieux ci bi euh, en plus nañ ko ci ci milieu bi di def lu baax di lu baax comme ni ngeen ko mu ngi def li nga xamantene pose ongle pose cils crayon lepp dal lu lu ndaw bëgg rek jigen muy lu baax di ci Momo relation

donc sama mbokku jaaykat yi samay xarit lañ am ma ci ñoo xamante ne moom dañuy déggante samay gaañ lañ yàlla moom moomu booleeg ñoom ñu nekk ay gaañ parce que ku ci nekk donc li sa wërsëg rek ngay ngay jël ci ci ci ci àdduna daal vraiment donc ñoom tamit ñoom ñëpp ma leen di bëggee di leen ñaan gudd fan ak wér gu yaram donc ku ci nekk li nga bëgg yaa ko xam fi nga bëgg a yegg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom yeggale ci barke si Karim Mbacke borom Karim ahlam lu am solo li ñuy wax rek milieu boo nekk boo ci boo ko ñaawalul rek rafetal ko te moom mu ngi koy rafetal bu mu baax eh, di ci ànd ak mbokk ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk milieu bi ñu koy rafetal ba mu ba mu daal di rafet moomoo bu loolu weesoo bëggoon nañu xam tamit eh, eh, comme li ma wax say cliente léegi nii xam nga c'est pas que si boo xamante ne day mel di dem euh, gis fi xamante ne ci nekk ko nan ngay def bu nit ñëwee dem mën a ñëwaat ci sa ci sa magasin dégg naa ko fi dugg moom pour une première fois di nga dellu si. ah mami xam nga sànq dama la wax dama jógee ci école dama jàng maanaam a être seet jaar fa jóge fa dem Sandaga foofu dama fa entraîné loo xamante ne da doon jàpp client pour bëgg ko jaay mun na la saaga ndey wala mu wax loolu la neexul te teewul di nga ko meñcee ba jaay ko donc loolu noonu moo nekk ci man ba tey yéene voilà. tarbiyo nga foofu noonu bëgg. foofu jàng naa fi li ma fay jàng ba pare ci métier bi. moo tax boo ñëwee ak népp do sa station népp nu mu mën a ñëwee man dinaa ko wàcce beese ko ba jaay la vraiment te loolu mooy sama rôle man loolu laa war a def. très bien. ñu wax ci Novita Style tur bi déjà fan la jógee. ba tur bi nag mu ngi nekk benn tur boo xamante ne donc ba mu ko yàggee xalaat euh, ba ma ko daree bind sax laa wax di ko fooyee yàgg na quoi Novita mooy italien la Novita mooy nouveauté donc euh, ci français quoi.

poosam diisul mu ñëw bëgg a sañse bëgg a gis loo xamante ne par exemple bu ko solee génn kenn dinañ xam ne daal ci Novista la jógee te poosam diisul nan ngay jëflante ak moom. waaw dañ koy am nuñ koy marié rek mën nañ ko xoolal benn pantalon bu oyof rek xoolal ko benn yëre bu rafet nañ ko loo xamante ne moom bu génnee bu demee ak fépp mu mun dem moo xam anniversaire lay dem moo xam am na fu muy dem ak copine am mais su génnee dina ci gis boppam moom vraiment parce fois solo du nekk ci yëre bi quoi ci nit ki lay nekk quoi ci doomu aadama Euh, donc amis téléspectateurs euh, comme ni ngeen ko waxé légui néna len dina dinaa ñëwaat ci benen anam benen facette ci lo xamante ni euh, Baye Momital novital lay doon donc sans plus tarder ma ngi ñëw légui wonaat len sama benen style benen port vestimentaire bo xamante ne rek moom rasul mo fi jaar à très bientôt chers internautes de la Wagadou Vision comme ni ngeen ko gisee gis ngeen ma nii maa ngi yaañ di bees taax nekkaat beneen ma euh, Mamy Osé ni ngeen ko gisee nii nag Momo Novita moo fi jaar maa ngi nii def robu Novita bu am classe bu am maanaa bu neex ci tàngoor bi neex ci été bi nee naa leen képp ku bëgg lu baax ku bëgg lu chic lu glam fii da ngay daal di ñëw fii nii sur les deux voies de la Liberté 6 nekk fii ci wetu camp boo ñëwee rek di nga gis mannequin yi ñu taxaw sañse lu am maanaa Momo nii nga ma génnal nii fii ma génn nii moom am na maanaa am na classe. dafa nooy ki. instant yaa ngi gën robu Novita. instant moom yaa ngi cu di cere di caakiri. barki très sérieux. donc mën nañu fii rek la am. jàpp na la trop te fi ne nii yaa ngi magnifique macha allah. macha allah ni ngeen ko gisee jàpp na ma maa ngi magnifique maa ngi doon beneen mami di wax ne rek euh, numéro bi dinañ ko daal di joxe euh, bu ma ko joxaatee parole dina leen jox numéro bi ngeen képp koo xamante ne toog nga fa nga toog gis du la neex danga koy daal di woo mu tegal la ko mu ñëw ba ci say tànk. Hmm. ndax mu ngi am na ñu muy liggéeyal ñoo xamante ne rek. du baa moom laay jox mu voilà. nga nga nga eh, kii nga nga introduire ci loolu noonu ci sa liggéey ak càq-càq euh, dafa am euh, ay ay ay moto yoo xamante ne ñu ngi circulé ci dëkk bi yoo xamante ne ay Novita lañ donc euh, su fekkee da jënd yëre tayal ba a ñëw ci place bi gis dara ci internet bugg ko donc mun nañ la ko tegal ci càq-càq yi ñun dañ la ko ba fi nga nekk. ak ñooñu aajootul sax nit di déplacé wu di ñëw yaa ngi ci commerce en ligne bi ñëw yaay sentir déplacé wu pour ñëw Novita nga def Novita nga sentir pour toog ñu livré nga toog ñu livré après jeex voilà nekk lu am solo loo xamante ne fi mi toll nii loolu sax da koo daal di laaj ah. te bu fekkoon ne dangay toog bëgg a jënd yére doo xam ku la koy livrer tamit euh, day metti kon nag gën a neex gën a tina leen may occasion ngeen ñëw hmm. gën a leen may occasion ku nekk fa nga toog nga toog fa def sa commande mu daal di lay fekk si Chou vingt 24 heures donc moomu bëggoon naa xam tamit euh, lan mooy li nga xamante ne ci millier bi dund nga ko mu neex la trop donc euh, li ma doon mu neex ma trop ci milieu mooy complicité bi nga xamante ne moom la am ak samay cliente donc ñu nekk samay xarit nekk samay gaayaan wax dëgg yàlla ku ci nekk boo ma déggul euh, donc boo fi gëjee sax di nga ma wala nga message bi wala nga xool ci lu ma nekk man tamit la même chose ñi nga xamante ne samay cliente fidèle lañ donc su ma leen déggu dama leen di woo di xool ci lu ñu nekk parfois sax barki maam Cheikh Rafal da ngay jënd ba jeexal nga tourné gis benn affaire mu neex la nga bëgg ko dama lo koy may billaahi dama la koy may si dama la koy may pour beneen yoon moo tax ëllëg quoi. dëgg la kon daal bu ñu déggee loolu mën nañu ne euh, say clientes surtout ñi nga xamante ne elles sont fidèles à Novita. Euh, mën nga leen a jàppee comme say sœur ñoo xamante ne sax koo ci déggul di nga ko woo nemmeeku ko. donc samay mag lañ samay tante lañ samay umba lañ samay lépp lañ. vraiment wax dëgg yàlla yàlla moom boole ak ñoom ñu nekk samay xarit wax dëgg yàlla. wax léegi nga ne woote euh, ñu wuyu si la yomb. te yow mm-hmm. am nga ko. xam nga jaaykat bi ak artiste bi dafa am benn affaire boo xamante ne ñoo ko xaw a niróole tuuti quoi donc artiste bi pour bu tëggee soirée donc ay nit ñoo koy fekk si non donc jaaykat bi tamit buy jaay ay nit ñoo koy fekk kon ñoom ñaar ñoo xaw a yem ci benn côté donc lépp loo ciy def yow nit ñi nga soxla quoi te pour nga am na ñi faaw nga am noo def pour am na ñi vraiment. donc benn kii artistes yi sa relation ak ñoom. parce que dañu lay dégg ku tourné ne Novita Novita moomu rasul nan nga sa sa relation ak ñoom lan la. waaw dañoo bokk génération nag donc euh, ñu xaw a méngoo benn yoon bu ñu bokk man ak ñoom suñu borom boole ñu donc ñu nekk samay gaañ nekk samay xarit donc ku ci nekk nag wan ma lu rafet loo xam lu nice loo xamante ne donc muy Waly Sidi Diop euh, El Hadj Keita Tarba Mbaye su ma limee daal damay jum ñoom Mbass jum gars yooyu ñoom ñëpp. comme xam nga ku ci nekk bu fu ma nekkul sax donc da ma fay woy yooyu yëpp quoi loolu sama diggante ak ñoom la. donc ma leen koy santé nag di leen ko gërëmee ndax ñoom ay Baay Faal lañ tey borom baax lañ wax dëgg yàlla. est-ce que mën nañu xaar Novita ci beneen facette maanaam ci anamu euh, yëre góor comme instant yi yaa ngi focaliser wu ci lépp loo xamante ne rek ci jigéen la jëm ak li koy taaral est-ce que mën nañoo xaar Novita ci beneen facette. waaw mi ngi ñëw ci yeneen de. Hmm. donc tu ne yamul ci yëre kese quoi parce que Novita noo bi dafa professionnel nekkul loo xamante ne day yem ci yëre kese quoi Novita wax dëgg yàlla. am na yoo xam ne samay secret daal maa koy nëbbu mais yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér yaram quoi ñu liggéey ba ci kanam donc sénégalais yi dinañ teg lépp seen bët bu soobee yàlla incha allah. kon projet yi ñu ci ñamal. bàyyi ba ci kanam. <laughs> gis ngeen kon mën ngeen a xaar euh, cher internaute euh, lu bees tàq biir Novita mën ngeen a xaar Novita ci beneen anam ci yeneen anam comme waxul nag kon dañuy xaar rek ñu nekk li nga xamante ne en exclusivité lay doon très bientôt ngeen amandoo ko yéen ñëpp moomu euh, ñu ngi l'émission tire à sa bëggoon nañu aussi nga wax ñu rek lan la ñu mën a xaar

donc mu nek message bo xamanteni ni bu ma ñor la buy joge ci sama bir xol message bo xamanteni dama koy jox zeni donc xalé yi jigéen ñi ak xalé yi goor yi ñinga xamanteni kep ko xamanteni bëgg nga cey dem donc bëgg boo ne bëreet kenn du la donc fonkol sa yaay loolu c'est très important fonkol sa yaay bëggal sa yaay lo am bokk ko ak xam nga ku jappul sa yaay yaay jambur ngay japp bo yaay jambur do ci am fonk sa yaay japp sa yaay barke maam Cheikh Rafal lay jëmele ci kanam barke Ahmadul Xadim xanaa déggoo ñu naan doom yaa ngi rawante ci waajuri ku jàpput so yaay bilaahi di nga jàpp yaay jàmbur ñu fonkat suñu yaay bu baax c'est très important mhm. balaa ñuy jox euh, moom mu tàggatoo rek damaa bëggoon dugg ci benn ruq boo xamante mu ngi fii ci biir place bi ci ñoo xamante ne nag nee naa leen nag luy taaral jigéen rek lay daal di dox ongle yeeg cils yeeg pose ongle yi pédicure manucure bàyyiwuñ dara dañuy daal di dox foofu noonu rek ngeen daal di gis li nga xamante ne moom la ñaari jongoma yi toog foofu di def ñu gisandoo ko ñun ñëpp

donc gis nañu matériel est-ce que mën nañu jàpp ne euh, lépp lépp rek ci yokku tar gi la wala c'est c'est ce sont des choses yo xamantene c'est très spécial. bon je peux dire que yokku tar bi la parce que émail dafa am par qualité du coup amna na émail simple amna vernis permanent amna semi permanent amna qui gel waaw du coup ba man yàgg naa ci liggéey bi yàgg naa si waaw.

maa ngi fi def euh, ongle maa ngi def cils maa ngi def euh, crayon tatou te bientôt léegi pédicure manucure bi commencé. maa ngi nuyu ñëpp seen ak seen sant di nuyu aussi euh, ñu ñuy seetaan di leen wax ne lépp nu vitale xewee daal.

émission tire à sa fin comme ni ma l'ai ko euh, cher internaute de la Wagodivision, Vision dama koy jox rek mu tago tago bu dul wax euh, dernier mot vous xamanteni rek euh, lay message bu fort bi nga xamanteni lancé ci conseil yi dem rek sa sa donc dañ koy di rek mu une ses dernières paroles après ñu ñëwaat émission bi Inshallah. dernière parole mm. maa ngi ñaanal samay wajuri fu ñu nek gënal leen fi ñu jógee yàlla yërëm leen ci barki Cheikhul Khadim donc ku ci nek tamit li nga bëgg sa biir xol ya ko xam muy goor muy jigen yalla nako suñu borom defal donc ku ci bëgg liggéey te amagoo liggéey yalla na yalla moy liggéey donc xalé bu jigen bu ci bëgg tamit jëkkër te amagoo jëkkër na suñu borom moy jëkkër ci barki Serigne Saliou donc euh, Momo ñu ngi lay remercier di la bu bar, a disponibilité am pour nous. Euh, je vous signale qu'il a été très très très sympa avec moi il n'a pas hésité à me recevoir recevoir euh, Waga Vision comme je koy c'est un jeune très très très ambitieux Il a ne mu œuvrer pour l'éploi, il a rek euh, lu baax la lu rafet ci jëm ci donc chers internautes ravi de vous servir aujourd'hui comme je le disais tantôt nous étions ici sur la Liberté 6 les deux voies de la Liberté 6 camp pénal wetu euh, euh, Maxi Foot seet ci ki nga xamantene mom moy Momo Rasoul euh, Novita bay Momo Rasoul j'espère que l'émission vous a plu di leen wax ni rek je vous retrouve très prochainement sur votre toute nouvelle émission Fashion Mode ci benen anam benen facette ñu seeti benen daanaan ci walu milieu bi au revoir et à très bientôt